lay euh, euh, faram euh, fàccee ci kanam tuuti bu ñëwee dina gën a yaatal Chérif mu mel ni local yi ville de Dakar ni ko Marcel doon waxee démb convoitise yi niñ ko tubaab di waxee moom moo koy gën a xëcc te tey instant yi xam nañu tête de yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene euh, bokk ci bile jongante. ba Fatick ni nga ko waxee noonu la mu mel ni kon carte gi mi ngi gën a leer au fur et à mesure que ñuy jege ci date bi di 23 janvier ci atum bu dee nag euh, mairie bu Ndakaaru wax nga ko xamee nan xar xanamu ñi nga xamante ne am nañu yéene jiite liste seen ay coalition muy Abdoulaye Diouf Sarr moom lañ ci njëkk a xam nekk Benno Bokk Yaakaar moom it euh, wàllu expérience am na ko parce que moom mooy maire bu commune bu Yoff nekk fii kon ci 19 communes yu Dakar yi beneen bi aussi jiite woon na fi ministère bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale donc li nga xamante ni kon moom mooy gouvernance territoriale war na ko xam muy Barthélémy Dias moom it nekk son collègue fële ca Mermoz Sacré-Cœur mm-hmm. nekk moom it ci commune yi gën a ràññeeku fii ci Ndakaaru depuis jiite na ko kon mën nañoo jàpp ni lu ëpp fukki at ak ñaar a ngi nii kon ba ñett sax moom Barthélémy Dias mm-hmm. mu nekk maire ba tax na kon moom mooy candidat bu Yewwi Askan Wi jafe Soham aussi n'a pas dit son dernier mot boo xoolee ci euh, yéenekaay yi nag waxaguñ ko mais comme moom ne day défendre bilan fan yii yëpp soxna yi def marche ba jàppale ko on peut s'attendre que fii ak euh, zéro heure di jot parce que buñ fàttali ni. zéro heure tey la ñuy arrêté li nga xamante kon moom mooy dépp liste yi ci préfecture yi ak sous-préfecture yi. Mhm. xëy na Soham Wardini mën naa bokk ci bataille boobu donc buñ ko négligé du doigt aussi la même chose parti xam na mais ci assemblée nationale lañ ko gën a xamee ci jamono Ablaye Wade ndax nekkoon na fi moom Doudou Wade ki nga xamante kon moom moo jiite groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais. Mm. boo xam ne quartier mm. boo xoolee sax mooy l'actuel maire di Djibril Wade bi nga xamante ne woon na fi ay jamono ligue de football professionnel muy loo mm. xamante ne aussi c'est fi nekk nii taxaw en tout cas ñi fi waneegu moo ci ëpp jàppoon dugg ci parti démocratique Sénégal yàgg ci opposition bi donc xam bu baax wàllu procédure ak expérience am donc kon ku jar bàyyi xel la. Mhm. am na ci ñeneen ñoo xam tamit comme Bougane Gueye Dany moom novice la ci woy mhm. ñu ngi koy cité pour la coalition gëm sa bopp loolu aussi on peut à ce que moom it mu indi mhm. li nga xamante ni lu bees la sachant que am na ci kenn ci ñi ànd ak Barthélemy euh, Bougane Gueye Dany ñoo xamante ni euh, ñoom it euh, du ñu ndaw muy Bamba Fall fële ca Médina mu ngi ci coalition gëm sa bopp donc mm. aussi ku xam Dakar la donc moom it bu duggee ci bataayu Dakar bi mm-hmm. affaire dina gën a ma yaa aussi l' ancien maire bien sûr muy Pape Diop mm-hmm. moom ku ne xam na ne ci wàllu la nekkoon muy PDS mais dafa gedd ndax déggoowuñ ci wàllu investiture yi mm-hmm. waxagut fan la jëm on peut ah kon liste yi nag mën nañ koo déposer dem ba ca biir am na ñoo xam ne ñu invalider seen candidature. Hmm. mais bu ñu ba publier toutes les listes on saura kan mooy dem ci bataille mais quand même c'est une bataille comme ni ko tubaab di waxee. Hmm. qui s'annonce à ah oui oui comme ni ko waxee et puis adrénaline yi di waxee ci lamb ji. <laughs> na bu yàgg Marcel euh, donc une journée qui peut être décisive pour Soham Wardini parce que on peut s'attendre à ce que mu dem euh, démb mm-hmm. démb rek ñu ngi ko maa ko doon ñaax ci euh, ci rubrique bi euh, un jour une actu. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est assez inédit quand même qu'un maire sortant. Mm-hmm. maire sortant Dakar ñu ñu écarté ko de. c'est ça de facto je pense que gëjoon na am wala sax mosul am à la à la mairie de Dakar. man li ma ci xaw a gën a jaaxal mooy dafa mel ni combat bi dafay mujj doon entre góor ak jigéen ah, parce que après comme ni ñu ko développé démb mm. euh, dafa mel ni euh, caucus des femmes leaders ñoom daal pare nañ mm. fa taxaw voilà jàppale ko pour que mu mën a présenter euh, sa sa une une liste en fait pour qu'elle soit tête de liste euh, d'une d'une coalition mhm. euh, soit ce sera mu nekk candidate indépendante mhm. mais en tout cas man daal noonu laa mhm. est-ce que fu mu nekk nii euh, dafa ni rek combat bi bataille bi ce sera une bataille du genre ce serait dommage parce que faut que ñu surtout gestu li nga xamante ne moom mooy compétence nit ki et puis ne pas mettre en avant juste la le côté féminin ou masculin maintenant après je ne doute pas des qualités de Soham Euh, est-ce que adrénaline bi monté wul ba pare. parce que li ñu gis fi mu ne nii moom euh, du yomb. non mais adrénaline bi yéeg yéeg na bu yàgg ndax xam nga déjà ca tànn ga rek. la moutarde yéeg euh, amoon na jeu. amoon na ay négociations. ba finalement l'accouchement a été difficile. mais au moins. parti ou bien coalition bu ci nekk. Mm. Euh, samp nga. Mm. sa sa sa mbër. Mm-hmm. maintenant lu waral coow li yëpp. Mm-hmm. loolu je pense que mooy l'enjeu qu'il y autour de de la mairie de Dakar. Mm-hmm. xam nga mairie de Dakar dafa mus a nekk mairie bu nga xam ni mairie bu rebelle la ndax bu ñu fàttalikoo. ci jamono jamonoy lay Wade la mairie de Dakar avait résisté à la razzia ñu ñëwaat également. Euh, euh, euh, ñi nga xam ne mooy Macky Sall ak la razzia marron mm-hmm. mu ñëwaat encore résister waat ci mm-hmm. si on se rappelle Khalifa Sall avait gagné seize des dix-neuf départements mm-hmm. en 2014 donc dafa nekk vraiment dëkk bu nga xam ne dafa xaw a ci benn côté beneen bi ci des aussi demoon na ba enjeu politique bi tolloon fu nga xam ne. Mm-hmm. Euh, l'acte 3 de la décentralisation bu ko fàtte bi ko indee. Mm-hmm. dafa mel ni que c'était pour néewal doole Dakar. Mm-hmm. Euh, mairie de parce que maire de Dakar pouvoir yi mu amoon. ak sañ-sañ yi mu amoon lu ci bëri acte 3 bi dafa ñëw. xaw ko nësaxal xaw ko wàññi. beneen bi ci des aussi moo di ni xëccoo Ndakaaru bi nekkatul sax. enjeu politique réel mais li ci ëpp solo mooy enjeu financier bu ñu fàtte ni juróom fukki milliards moom mooy budget wu Dakar te budget boobu xaalis boobu wax dëgg yàlla ku ne xam na ni nag euh, euh, weñ euh, suukar da koy xëcc te ku nekk bëggoon nga maîtrise bëgg nga maîtriser Dakar maa dégg keroog Cheikh Yérim mu koy wax Dakar c'est pas parce que tu as de Dakar que ëllëg mun nga nekk président de la république parce que gisaguñu benn maire de Dakar bu nekk président de la république. Mm-hmm. mais dafa am enjeu trop. Mm-hmm. ci wàllu politique. Mm-hmm. que yow. parti au pouvoir. nga maîtriser Dakar. opposition bi aussi dañu toll fu nga xam ni mhm. soxla nañu yor Ndakaaru parce que mhm. Ndakaaru loo ci mun ti dégg maire bi ko yor dina am doole. Mhm. ak sañ-sañ bu nga xam ne dina mën a étendre ses tentacules euh, politiques. pour massifier un parti. loolu yëpp def ci jouer mais en tout cas quoi qu'on puisse dire. Euh, du yomb parce que Dakar mooy poumon économique. poumon administratif. et poumon politique bu Sénégal. c'est la capitale du euh, Sénégal. que c'est vrai que en 2014 euh, taxaw Dakar ñoo gagné woon l'essentiel des mais entre temps aussi li naan beaucoup d'eau quand même a coulé sous mm. les ponts. Mm-hmm. ni ñu ko mën a waxee mooy lu au moins sept communes yoo xamante ni ñu àndoon Khalifa àndatuñu ak moom. Mm-hmm. te loolu quand mën na jur njeexital boo jëlee Parcelles Assainies par exemple Moussa Sy plus là nga dem ci Jean Baptiste Diouf bi nga xamante mm-hmm. euh, mooy santé añ léegi ñu investir fa kii di Zahra Thiam. nga jël Médina comme sa bopp boo demee aussi fi nga xamante ni kon euh, moom mooy plateau. muy dëkk bu mag. Mm-hmm. Euh, maire ba aussi ak l'actuel maire. Alioune Ndoye aussi mi ngi ci benn bokk yaakaar euh, waaw pour montrer kon au moins il y a sept yoo xamante ne ba ci Patte d'Oie. Mm-hmm. Banda Diop mi fi dalal la dernière fois ñoo ñëpp en 2014 ils ils mm-hmm. plus à soo am aussi génn ci. ça montre que quand même situation. ça peut affaiblir en place. Euh, régime bi nañu ba maanaam jël bastion Dakar ci référendum yi ñoom ñoo ko gagné. législatives yi également mhm. sous la coupole de Amadou Ba euh, fexoon nañu ba ci présidentielle yi mhm. fexoon nañu ba gagné Dakar te dynamique boobu la bëgg a continuer mais du yomb parce que euh, mbër yi taxaw nañu ne raw gàddu la bokk nag ba léegi du yomb du yomb euh, de toutes les façons ñu fàttaliwaat rek ne tey la dernier délai bi ba zéro heure pour ñu mën a déposer seen ay liste lu ci mën a am local yooyu di ci gën a ànd ak rédaction bu télévision Futurs Médias dañuy wéyal